moo tax mu ne waman xalita képp ku jaxase fil qiraati ci jàng yi muy jàng moo xam ca fatiha ja la moo xam ca saar la mu jaxase ca bi kalimatin ci baat baat boo xam ne min xayril quraan bokkut ci alquran jàng ba ci kanam nga dugal ay baat yu bokkut ci alquran moo xam loolu mi ngi la arrivé ca fatiha ja wala mu arrivé la ca saar wa su boobaa sajada na sujoot ba'da salaami gannaaw bi mu sëlmalee ba pare après sëlmal rek lay root su joot toog su jootaat toog ba ca après door a taaya sëlmal wa in kaanat bu nekkee nag minal quraan ni ci alquran li mu jaxase su fekkee ci alquran la bokk bu léegi dañ koy wax dafa runge di dal ci fatiha ba ci kanam mu runge dali fale door a ñël del siwaat kooku falaa sujooda déet sujoot alayhi di ko war ñu ne faw mu ne ah, illa an yataxayara ndere mu soppi allah fa baat aw yufsida ba mu yàq maanaa maanaa ma su fekkee ne baat bi moom mboolem ñëpp a dëppoo ci xuraawu sabaani nii lañ koy jàngee moom mu jàngee ko beneen façon bu wuuteeg booba te saa yu baat yàqoo ñaareel maanaa yàqu ah su fekkee loolu de moom dafa ko arrivé loolu dañ koy jàppee mu yokk ndax dafa wax lu bokkut ci alquran su boobaa nag kon dafay sujjoot lu ñuy tuddee baada salaam gannaaw bi nga xam ne ni julli gi jeex na ba pare moo tax mu ne kon fa ngees gi day sujjoot baada salaam yi gannaaw sëlmal bàyyi na wax jooja ma ngay dugg ci mbiram gémmantu ndax léeg-léeg nit kiy julli lu mel ni tusubaar wala gee gémmantu xaw laa roofu su fekkee gémmantu gu oyof rek la yàqu dara ca njàpp la yàqu dara tamit ki julli ga waaye bu xawee diis nag ba xamatoo fi imaam toll xamatoo yow tamit fi nga toll d'abord moom sa njàpp li yàqu na sa julli gi tamit li nga xamoon yàqu na demal nga dem jàppihaat jéem a ñëw royaat ci ilimaan su fekkee fekkoo julli ga jeex su fekkee fekkee nga julli ga jeex nag nga commencé waat sa julleeg bopp moo tax mu ne man na sa ku gëmmentu fi salaati ci julli gëmmentu gu xoyof fala sujo des le di ko war waaye wa in saqu bu diisee naw ma nelaw ya rek aada day baamu salaata julli ga wal wutoo ak njàpp la ndax kat fi nga gëmmentoo mu diis xamuñ li nga fi def kon dañuy jàpp ne njàpp la moom yàqu na li nga xamagum ci julli gi yàqu na demal nga jàppeaat te sosaat julli ga ca commencement bu imaam jeexal la gut nga kàbbaar roy ca gannaawam boo fekkee mu jeexal nga sosaat sa julleeg bopp loolu mooy atteeb képp ku gémmantu gaar guddiis ci biir julli bana wax jooja mi ngi wax onk ku feebar xam nga ñaareel nit bu feebaree bëgg di julli buy jug ñaareel wala mu bëgg root ne ma ngay sujjooti wala mu bëgg rukkoo ñaareel da nga dégg muy bindi di wax u uh, ngir maanaam métit wi nga xam ne dafa nekk ci moom kooku nag lay wax ne loolu bu ko defee te tayut ko jéggal nañ ko ko moo tax mu ne wa aniinul mari bi wonk ku feebar di bindi wonk yooyu tafarum lu ñu jéggale la nga déggee ci nag booy wonk te fekk dara dalu la yaa ko tay rek mën naa am sax rek gu xëpp rek la loolu dañu jàpp ne da yokk soo ko tayut da ngay sujjoot ba'da salaam ndax yokk nga si julli gi lu ci bokkut soo ko tayee nag moom julli ga dafay yàqu kon loolu mooy atteeb képp kuy onk te fekk yaa ko tay waaye duwut feebar duwut dara duwut aw métit léegi nag mi ngi wax moo tax mu ne wata nax naxu xeddartiku li darurati ngir lor kooku muxtafarun luñ jéggale la walil ifhaami su fekkee déggalee tax nga def ko munkarun luñ xaraamal la waaye wala tabtulu du yàqu salaatu julli ga bii ci moom maanaam da nga yeyoon guru ba bëgg a ke julli ga gàllax am na lu tag ci sa boli nga dem ba ci biir mu bëgg laa arrivé ngay xeddartiku noonu ngir jàllale ko su boobaa loola jéggal nañ la ko ndax darooriyatu moo tax wala xeddartiku goo xam ne lu mënta ñàkk lu la gaar la dara nekkut ca waaye nag su fekkee dafa am ku lay woo wala am kuy laaj dara ngay xeddartiku jublu ca bi maanaa déggale ko ko wan ko ko su boobaa loola moom lu xaraama xaraam la waaye nag li xëpp ci fuqaaw yi nee na loolu nag mënta yàq julli ga moo waral mu ne wata nax na naxu xeddartiku li darurati ngir lor muxtafarun lu jéggale la waaye su fekkee ne walil ifhaam yi déggalee tax nga di ko def waaye loru taxut munkarun luñ xaraamal la waaye wala tabtulu du yàqu salaatu julli ga bihi ci moom bàyyi na wax jooja ba ca tegu mu ne man naa daahu képp koo xam ne xoo na ko ahadun kenn fa mu wax la hoo ñeel ka koy xoo ne ko aa kooku de kuré hasibeef nañ loolu mu def waaye nag wa saxat wér na salaatu woo julleem nga da ngay julli ba ci kanam am ko tudd sa tur di la woo nga ne ko subhanallah wan ko ne ko yaa ngi nekk ci biir julli loolu nga wax ko de yàqut julli du waral sax sujjóot waaye sib nañ ko waaye nag kon loolu tamit donte le moom Maalik moom li waa madinatul munawwara di jëfandikoo lay gën a jiital ci hadis bu wér te terewut sax yonentu wax na ne képp kuy julli góor nga jigéen nga buñ la xooxee ci sa biir julli ga mën ngaa wax subhanallah waaye moom dafa ne su fekkee yaa ko tay rek ci bu Malik ñoom dañu jàpp ne def nga loo xam ne lu luñ siba sib la ba ca tegu wa man waqafa képp ku gàkk fil qiraati ci jàng wala mu yaf tax te gàggantiwut ci moom ahadun kenn taraka na baxi tilkal ayata boobale aaya wa qara amu jàng ma baxdaha la ca gannaaw aaya ba fa in taxasarat su fekkee jafe na nag alay ci moom rakaa na rukkoo waaye wala yanfuru bu mu xool mushafan kaamil bay bayna yadayhi ca kanamam da nga doon jàng fatiha ba mu jeex mu rafet lool nga jàllar bi ko rek bëgg a dal ca ala imran wala bëgg a dal ca baqara te sa mokkal yeggut ca nga gag kon kay boo gagee am ku la mën a gàgganti baax na nga continuer su fekkee gag nga nag te kenn gàggantiwut la baxil aaya ja nga daloon dem seeti fu la neex ci kaamil bi fu jege foo mokkal nga dal fa commencé jàng yaa ngi doon wax alif lam mim zalikal kitaab mënuloo jàll baxi ko fa te xamuloo ku la gàgganti baxi ko te dem dale ci xul wallahu mi nga mokkal la nga ca man nga def ko ca soo xamul ku la gàgganti comme xas nga am benn aaya rek ci maanaam lu dul fatiha mooy gannaaw fatiha ja su boobaa maanaam man ngaa dem nga rukkoo yi te du yàq dara ca julli ga du jar tamit ngay dem di wut ab kaamil ne yaa ngi koy xool ndax gannaaw bu fatiha xasee jeex lu ca tegoo ti ci ay baat rek donte le benn baatab aaya la demee ni muddahamataani borom bu rukkoo yi tamit julli ga wér na kon nag boo xamee ku la gàgganti continuel soo ko xamut baxi ko dem foo mokkal soo ko xamut taxamu mënoo koo baxi dem dali feneen tamit baxi li nga doon def yëpp tanga dem rukkoo yi bàyyi na wax jooja ñu ne ko nag buy fatiha mu ne ah ilaan yekkoon rek mu nekk gag ba fil fatihati ci fatiha kooku de moom falaa budda mënul ñàkk fala budda del jaas bi kamaaleha ci matak fatiha benn bi mushafin ci kaamil mu xool ko aw xayrihi wala lul kaamil ni ki muy gàgg waaje di ko gàgganti muy tudd baat yañ koy gàgganti moog moom fekk bay fatiha jeet di jeexee waaye nag fa intaraka bu baxee min ha ci fatiha aayatan benn aaya rek sagada day sujoor xabla salaami njëkk sëlmal wa in kaana bu nekkee ak sara lu gën a bëri benn aaya ci fatiha nga baxi ko ci batalat yàqu na salaatuhu julleem nga dama foon nag nit nag wax dëgg yàlla li mu fexee ba xam mbiram àddunaam li muy jënd li muy jaay la ci aju lépp lu mu gën a genn wàllati genn wàllam su ko defee rek dana mën a mën a mokkal fatiha su yàlla dogal nag mokkaloo far yàlla dogal ngay julli ah euh, yàlla naxtu la nga bëgg ak ilimaan ba ne yaa ngay jiite nit ña far gàkk ci biir fatiha ah ñu la gàggantee rek ngay continuer ñi lay gàgganti ngay continuer rek fekk bay saar wa di jeexee waaye yow fexeel ba tudd baat yépp nag su fekkee yow gàgg nga ña nga jiite sax ñi tenewoo leen tenewuñ la mënuñ laa gàgganti kaamilan ci sa kanam te boo xoolee man koo xool ubbil kaamil ba ngay xool ca fatiha ja di tudd baat ya fekk ba muy jeexee waaye daal wax dëgg yàlla daal dama jàpp ne ku mokkalut fatiha ba di ca gàkk ak ñi lay gàgganteek ay yoon daal xëccoo ak ilimaan war na laa wàcc te bu la nit ñëpp dajee ne la tamit yaay kaay jiite donte yaa tabax jàkka ji tamit nga seet ke la raw nga yëkkati njiit ga jox ko ko moo tax mu ne kon nag loolu mooy atte ba su ko defee nag sax boroom xam-xam yaa ngi wax waaye ku mokkul fatiha luy atteem ñaari wax lañ ci wax ñu ne daal su ko mënee moom julleem yëpp nay dem di roy ñu koy jiite xam nga bu la xasee di la jiite rek yow eh, ci mazhabu Malik moom bu dee julleeg biral la sopp nañ nga jàng nànk bu jul bu dee jullee yoole li yeelu la kon sopp nañ nga jàng nànk waaye bu dee julleeg biral la nag moom jàng warul la ndax qiraatul imaami qiraatul ma'muumi su ko defee loolu lañ bëgg ñu ne nag waaw bu fekkee mokkulul fatiha te moom fa muy jullee tamit amul kenn ku ko mën a jiite luy xàtteem ñu ne kon fatiha wàcc na ko waaye nag kabaar su ko defee léegi rukkoo su ko defee jugee ko ci rukkoo ba siggi ba dal dem su jooti julli gu gaaw xam naa lay lay lay julli am ñu ne déedéet fokk tamit mu taxaw tuuti rek distance am koo xam ne ku mokkaloon fatiha moom bu doon jàng taxawaay ba ndax ñu ne fatiha tamit ñu ne buy nekk farata jàng gaa kon nag ñu su fekkee mënuloo koo jàng mokkalutuloo ko kay kon taxawaay ba xamatul fa yoon kon yow su paree rek kabaaral rek soo mënee dara lu dul fatiha ci alquran ñaari baat ñaari aaya nga jàng ko te dem root dem rukkoo yi waaye daal nga nekk góorgóorlu nag daal ba jàng fatiha nag donte da ngaa dem ba nekk mag yéex a tuub tuub nag te mën a goo tamit maanaam del góorgóorlu ñi lay sa fatiha nga di ko jàng te julli ya ngay julli ngay royaale ke ña lay raw ñay ñay ñay jiite di ko defaale feeg ba ngay mokkalee fatiha bu ko defee boo jullee yow kenn dana mën a julli julli gu rafet rafet. kon nag àtte yooyu la ci borom xam-xam yi wax boo demee ki Cheikh Khalil loolu la ci wax su ko defee nag kon ba ca tegu. moo tax mu ne nag boo ca baaxee benn aaya wala lu ko boo ci bàyyee benn aaya ci fatiha da ngay sujud xabla salaam bu xëppee benn aaya julli ga yàqu na wa man fataha ku gàgganti xalaa xayri imaami ku dul imaamam batalat yàqu na moom moomu gàgganti salaatuhu julleem nga yéen ñaar bokku leen réseau waajee ngay julli fële yow ngay julli fële si julleek bopp joteewu leen dara mu gàgg looy waane ba di ko gàgganti baxi ko moom kay mu jiite ñu gàgganti ko wala baxi ko moom bu mu seet na muy def ba mën a matal ak julleem waaye yow nga bëgg a bàyyi sa julli gee dem di dugg sa julleeg jàmbur ga te bokku leen réseau su boobaa loolu dafay yàq sa julli ga moo tax mu ne walaa yaftaxu bu mu gàgganti ala imaam yi ca ilimaanam sax illa an yantafira ndere mu mu ñëndiku alfatxa gàgg ba aw yufsida ba mu yàq maanaam maanaama sa ilimaan tamit bu ko wan ne ko yaa ngi jiite ku la raw bu ko wan ne ko yaa ngi jiite ku mën a jàng ba tax na xam na ñoo xam ne buy seen ilimaan di xaw a taxaw rek ñi gaaw gàgganti ko di wane mën ak jàng déedéet bàyyi ko mu dem ba xeg si ci aaya bi man ta dem mu areeraat ñëw man ta dem bu ko defee nag ba ñaari yoon ba ñett nag nga door di ko gàgganti loolu lañ gën a bëgg waaye bu ko wan sa mën a jàng gi loolu amul solo waman jaala ku wëndeel fikkaroo xelaatam fii umóori duniyaa ci mbiram àdduna naqasa day wàññeeku sawaabuhoo yoolam ba waaye walam tabtul du yàqu salaatuhoo julleem nga dañoo bëggoon booy julli nga jël sa xel lépp def ko ci biir julli gi maanaam wëndeel ko ci sa biir borom mi nga xam ne moo la sant tamit julli gi waaye nga bañ a jël sa xel mi di ko wëndeel ke soxna ya léeg nga wëndeel ko ca depanse ba léeg nga wëndeel ko ca marché ba léeg nga wëndeel ko ca koo yoreel xaalis ak ku la yoreel xaalis naam loolu de ku ko def tere terewut nag juli ga moom wér na maa julli ga man dootoo ko jullihaat waaye nag yool ma moom dana wàññeeku suñ la waroon a fay par exemple 100 da mën naa am ñi fay la 80 ka wala ñu fay la maanaam 90 wala sax ñu fay la 60 ça dépend yàlla may fay rek na mu gisee sa julli gi nam ko mën a fayee waa julli ga moom boo ko julli woon lépp nga xalaat ko ci mbiram àdduna tamit tusubaar jooja bu doon tusubaar mbaa tàkkusaan wàcc na la jërut maanaam nga di ko jullihaat ndax wér na nag ba danga ci xam yool kooku moom atteeb yàlla la mooy seet na ko ca neex maanaam mu fayee ko wax nañ ne nag julli ba julli ga jeex te xalaatuloo dara ci mbiram àdduna nekk na loo xam ne lu jafe-jafe-jafe la wax nañ ne saxaaba yi mos nañ leen cee tegal gëléem yu bari ne ku mën a julli ba sa julli jeex te xelaatuloo dara ci mbiram àdduna yaa moom gétt ak gëléem gi ñenn ña benn rakka lañ am xelaat ñenn ña ñaar ñenn ña ñett ñenn ña ñeent Abubakar ma ca gën a nekk jàmbaar ba mu demee bay taaye taaye bu mujj ca la xelaat ba mu paree rek ñu ne ko waaw yow mbaa xelaatoo dara mu ne ak ah, kay bi ma demee bay taaye taaye bu mujj laa xelaat gëléem yi suñ ma ko joxee fan laa leen yeew ndax ñoom duñ fenn lu ñu wax rek dëgg la bu doon ñun nag dañuy julli ba pare rek ne xelaatuma dara te fekk maanaam lu ne ci boppam moom xelaat nga ko ba mel ni waaja doon julli kabaar gaaw rek sëlmal rek daal di wax waaja ne ko yow kat weccet wi ma la delloo woon ëpp na ñaari junne bi may julli laa ko xelaat calculé ko ba dis ne gis na maanaam yaa ma war a dellu ñaari junne li ma la jox dafa ëpp xam nga loolu xaw na doy waar bàyyi na wax jooja waman dafa képp ku jañ almasiya aji dox bàyyi na yëddahi ca kanamam menn masalaangoo ko aw sajada wala mu sujjoot ala shaqi jabhatihi ci wàllu jëham bi aw ñaari masalaangoog aw sajada wala mu sujjoot ala tayatin ci taxañ-taxañu kaala buy benn aw tayatayni wala ñaari taxañ-taxañu kaala dafa taxañ kaalam gi ci jëham muy benn yoon mu ñëwaat rombalexat ko ca kaw benn yoon booba muy ñaar min imamatihi ci kaalaam ñetti masal yi yépp fala chi addi dara alayhi di ko war ku fekkee da ngay julli am ku bëgg a jaar ci sa kanam gaaw nga bamax ko kooku yonentu bi def na ko su boobaa kooku yàqu sa julli gi ñaareel bi booy sujjóot dañoo bëggoon sa digg jëbi ngay jël ne ko ràpp ci suuf si sa bakkan bi tamit ne ràpp ci suuf si yow nag da ngaa xaw a sujjóotee benn côté jëbbi loolu tamit ba tey jéggal nañ la ko waaye gënut nag wala nga jël sa kaala gi maanaam takk ko ci sa kaw bopp bi ci sa jëbi sujjóot ca kaw kaala googa noona te fekk benn yoon nga ko ca ah, rombale wala nga rombale ko ca ñaari yoon da jaaral bi ko sujjóot ca kaw romb ñaari rombalay kaala ya waaye bu xëppee ñaar rek su boobaa day tekkee ne su jootutoo ndax yaa ngi sujjoot ca kaw yére booba di kaala ga day mujj nekk ab téeñ te su boobaa ci nga sujjoot dootul wérati moo waral benn taxañ taxañ la may bu bëree ba bëri ñaar waaye bu ko xëppee ñett ñeent nga sujjoot ca kawam ab téeñ ci nga mujj sujjoot te su boobaa julli ga dootul wérati bàyyi na wax ja wa waman wala shay'a déet dara fii xalabatil xay di ko war ci not ak waccu wal xalasi ak gàll fi salaati ci julli dafar lekk ba regg lekk lu ëpp rek ne ma ngay rukkoo rek far dogal mu gàll wala dem ne ma ngay sujjóot rek far dogal mu waccu waccu moo xam ne moom loo cowut ko tayut ko su boobaa loola na muy ñàkk yàqee kooram nga loolu tamit noonu lay ñàkk a yàqee julleem gi moo waral kon képp koo xam ne da nga gàll ci ci ci ci ci ñàkk tey ci noteel wala nga waccu ci noteel su boobaa bu doon koor yàquwut bu doon tamit maanaam euh, bu doon tamit julli yàquwut buy koor nag ci sartaab bi nga gallee ba mu génn dara duggaatut waaye bu duggaatee nag day waral nga fay benn fan euh, mu ngoog bana wax jooja wa sahwul maamomi jamaju maamoom yaxmiluhu dana xeno ko imaamu imaam faw mu ne ha ila an yekkoon rek mu nekk min naqsil faridati ci wàññi farata yow de su fekkee da doon julli baxi dara ci wàllu sunna yi demee ni maanaam rabbana wala kalhamdu nga baxi ko ay yoon wala allahu akbar nga baxi ko ay yoon wala taayaba nga baxi ko ba nga toogee waxuloo attaxiyaatu lillahi lu mel ni sunna ya ñu waxoon su boobaa loolu benn boo ca baxi su boobaa imaam moo la koy yanul ndax imaam moo la yóbbuwaale waaye nag su fekkee li nga wàññi farata la lu mel ni rukkoo wala sujjóot yu mel noona su boobaa moom ah imaam du la ko mën a yóbbul de kon fokk da ngay indi loola nuñ koy indee dana la ko wax léegi nag ida ida wa ida saha bu jamajee almaamumu maamoom ah ba tax mu baxi farata aw naasa wala mu gëmmentu ba tax mu baxi farata aw suuxima wala ñi tanjamal ko dafa xat jàkka jàkk xat nit ñi roofaloo ba nga xam ne yow sax mënuloo far am foo rukkoo ala rukkoo ca rukkoo ba ba tax na ñett yii moo ko arrivé wala benn arriver na ko ca ba tax na defut rukkoo ba ak ilimaan mënu koo defandoor ak moom dafa dafa jamaj juum wala dafa gëmmentu walla dañ koo xatal taj tëj ci ko ba nga xam ne mënul am sax fu mu rukkoo wa huwa ta moom fil xayril ula nekkul ci rakkaa bu njëkk ba ndax bu nekkee ci rakkaa bu njëkk ba doxagoo maa moom kon loolu mi ngi la arrivé ca deuxième rakkaa wala troisième ba wala quatrième ba lii bu la arrivé ba rukkoo fa in tamea su yaakaaree moom maa jooju ñàkk a rukkoo ngir ak gémmantu wala ngir ak jamaj wala bi maanaa ngir liñ ko tacci fii idrakil imaam yi mu yaakaar mën a jot ilimaan xabla rafi njëkk imaam di yëkkati mais boppam ba mi na sajadati ca sujjóot ba saaniyati bu ñaareel ba ah kon rakkaa na gaaw dem rukkooxi wala xiqahoo mu dem dabi ilimaan suñ la taccee wala nga gëmmantu wala nga jamaj ba bay imaam di rukkoox yow rukkooxoo dangaa xool rek gis imaam ma nga ca sujjóot ba su la wóoree ni man nga fay rukkoo ba sa yaram dal nga siggi wax sami allahu liman hamida ba sa yaram dal nga jàllar bi ku root dem sujjóot bu njëkk ba sa yaram dal balaa imaam a siggi ca sujjóotam ñaareelam ba fekk yow nga mën a defi loolu ba fekk ko ca si góotam ñaareel ba avant muy siggi kon nag demal defi loolu mu rawee xoon la te mooy rukkoo ba jàllarbi ku dem sujooti sujoot bu njëkk gaaw mën a profité fekk ko ca sujootam ñaareel ba balaa moo siggi waaye nag nga ne ko su fekkee man ni ma gisee imaam bi may bàyyi bi ñu ma taccee ba may jot sama bopp wala ba may gémmantoo ba may mën a eh, mën a setantal wala bi ma jamajee ba may xool ak imaam presque ma ngay bëgg a sigg ca sujootam ñaareel ba nu may def mu ne fa in tamia su fekkee dafa yaakaar maanaam euh, su fekkee wa in lam yattama kon su fekkee yaakaaru ne mën naa dem rukkooxi gaaw dabi ilimaan ca sujootam ñaareel ba balaa siggi nu may def mu ne taraka na bayi rukkooxa rukkoo ba wa tabia mu topp imaamuhu imaamam wa daa mu fay rakkaatan rakkaa fi mawdiha ca place ba baax baxda salaami imaam yi gannaaw sëlmal ak ilimaan yow ka xam nga ne bala nga fee rukkoox yi bay siggi bay wax sami Allahu liman hamida bay sujjooti rek ilimaan dana siggi ca sujjootab ñaareel ba ci rakkaa boobu loolu arrivé la kon nag bahil rukkoo ba bahil lépp te nga gaaw rek dem sujjooti fekk ilimaan fa mu nekk soo demee nag ba ilimaan sëlmal yow nag nga jug fay rakkaa boobu nga xam ne da cee rëccale ab rukkoo su ko defee nga fay ko jàng ca lala la rakkaa ba rawee woon rek bu dee rakkaa bu njëkk la bu ñaareel la kon nga jàng ca fatiha ku saar bu dee julleg gee la nga biral ko ca kaw yow door a toog taaya sëlmal waaye boo paree yow doo sujjoot dara doo fa sujjoot dara ci loolu jéggal nañ la ko imaam moo ko yóbbu xale daanaka léegi nag kon loolu mooy ku ñu raw ci rukkoo ku ñu raw ci rukkoo daal moo xam gémmantoo la ko yóbboo wala dañ laa tacc moo la ko yóbboo wala jamaj moo la ko yóbboo sa dayoob dabi mi ngi xem ci man koo defi laata imaam di siggi ca sujootab ñaareel ba su la wër na loolu mënta ne rek baxi ko tanga dem fekk imaam fa mu ne su ko defee nag léegi saa yu imaam demee ba sëlmal nga jug bi maanaa fay ab rakkaa boobu ñu rawee wala bu doon rakkaa bu njëkk nag moom ñi ram ñi raw la ci ñi tacc la wala nga jamaj wala nga gémmantu ba tax ñi raw la ci rukkoo kenn fayloo hut la baxi lépp rek dem fekk imaam fa mu nekk soo demee nag ba imaam sëlmal ba pare nga jug fay rakkaa bële ba bi nga xam ne nii moom lañ la rawee woon ci loolu kon naw loolu mooy saxatte léegi nag mu ngi wax si buy sujjoot waaye wa in saha bu jamajee ani sujoode wali sujood aw soxima wala ñi tacc ko tanjamal ko aw naasa wala mu gëmmentu xataa xaama ba jug imaamu imaam ilaa rakkaatin jëm ci rakkaa oxra beneen léegi génn nañ bi imaam a ngi ca beneen rakkaa saggee na gaaw mën a dem sujooti wa in tamia su yaakaaree fi idraakil imaami jot ilimaan xabla xaq di rukkoo njëkk fa fasu rukkooxa ba ca baneen rakka bi imaam dugg na ko dem defi wa ilaa su fekkee yaakaarut ko tarakahu na baxi sujjoot booba wa tabiata mu topp imaamu imaam bu julli nga jeexee wa qaddaa mu fay rakkaatan ab rakka oxra beneen ay dan ba tey kon nag su fekkee dañ laa tacci wala nga jamaj wala nga gémantu ba yow dangaa baxi benn sujjoot ba nga xam ne yow nga toog rek gis ilimaan jug di jàng fatiha ku saar nga xool ko ca kaw muy jàng su la wóoree ne man nga fee gaaw sujjóot laata imaam di rukkooxaat euh, beneen rakkaa bi bi ci tegu muy troisième bi su fekkee ci deuxième bi la la loolu arrivé woon par exemple balaa dugg ca troisième ba ba koy rukkooxal mën nga fee sujjóot kon gaawal sujjóoti dem gaaw dem dabi ko bokk ca rakkaa ba te dara du ca war su fekkee ne wóor nga ne bala nga fee sujjóot bay siggi rek imaam moom dana fekk mu rukkoo ba siggi kon yow ci dabe ngay dëkk kon baxil sujjóot ba nga nekkoon te nga dem fekk imaam fa mu nekk nga ànd ci ak moom boo demee ba julli ga jeex nga fay ab rakkaa boobu remplacer ko rakkaa bi la sujjóot bii rawee wala fayee ko rakkaa ba la rukkoo bale ma waxoon rawee sa du sa sa bu paree doo sujjóot dara kon nag daal boo ko doon tënk ngay wax ne dayoob ku ñu raw ci rukkoo mu ngi xem ci dabe ga balaa imaama mën a sigg ca sujootu ñaareel ba waaye ku ñu raw ci sujoot ñu takk la wala nga jamaaj wala nga gëmmentu dayoob dabiga mooy rakkaxa bi ko méng bala caa imaama rukkooxaat rek fekkee mën nga ko mën ngaa dem defi ko fekki ko ca loola ba sa yaram dal demel nga defi su jóot ba dem fekk ilimaan ca loola balaa siggi su fekkee wóor na ne bala nga koo def fekk imaam siggi kon yow ci dabe ngay dëkk bahil loola ta nga dem fekk imaam bu paree nga fay ab rakka kon yaakaar naa ne loolu daal lañ ci bëggoon a wax ci mu leer waaye bu paree ñu ci déggu rek après ñu mën koo laaj ba mu gën a leeraat wax waxay su xaddaa fu mu fi fayee rakkaata ab rakka falaa sujjóotu alay du ca war foo fu ñu la taccee wala nga gémmantu wala nga jamaj wala lu la mën di arrivé da nga xaw a absenté sa xel mi ba ñu raw la ci rukkoo wala ñu raw la ci sujjóot ba tax mënoo dabi ndax waru na bala ngaa dabi fekk imaam sigg ca lam nekkoon bu dee sujjóot ba la dana fekk mu rukkooxi beneen rakkaxa bi bu dee rukkoo la bala ngaa koo defi dana fekk mu sigg ca sujjóotam ñaareel ba dalaa wax ne la baxil la nga def ta nga dem dabi ko bu paree nga fay ab rakkaxa waaye boo fayee rakkaxa nag doo sujjóot mukk maanaam doo ca sujjóote baax da mbaa xabla déedéet ñu ne faw mu ne ha illa an yekkoon rek mu nekkoon saakan di aji sikk fi rukkoo ci rukkoo ba awi sujjóot di mbaa sujjóot ba su fekkee ne dangaa sikk ne a ah, man de dëgg la tacc nañ ma wala sax man de xaw naa gëmmentu wala man de xaw naa jamaj waaye yaakaar naa nag rukkoo bi moom def naa ko wala déedéet man yaakaar naa sax sujjóot bii sax def naa ko comme sikk xas na ca am rek ba loolu jàpp la su boobaa nag bu imaam sëlmalee ba nga jug di fay ab kon nag boo paree fokk nga sujjóot ba'da salaam ndax manoon naa am defoon nga ko te kon yaa ngi koy defaat di ko remplacer ab rakka yokku nga moo waral kon suuf bu bu sikk amul rek boo fayee rakka dara waru ca waaye bu sikk xasee am ci def naam defuma ba tax nga fay ab rakka kooku moom fokk bu paree da nga sujjóot lu ñuy tuddee ba'da salaam ndax sikk gee tax te mënoon naa am defoon nga ko moo waral boo ko defee kon nag ñu ne la kon sujjóotal ba'da salaam jangee ko ko loolu moom loolu la bana wax ja mi ngay wax di julli ba ci kanam rek am yent yenti suuf yu la gaar lu mel ni jiit wala jaan moo tax mu ne waman jaatu képp koo xam ne dikkal na ko bu jiit aw xayatun wala jaan fa qatalaha mu ray ko fala shay'a de dara alayhi di ko war ñu ne faw mu ne ha ilaa an yatulondre ba yàgg la fi'luhu jëf ja aw yastadbira ba muy dëddu alqiblata qibla fa innahu buy loolu kon yàq taxu na dagg julli ga mooy ne da nga joon julli ba ci kanam rek jiit maanaam ñëw fekk la fi ngay sujjoot wala jaan ñëw feeñ fi ngay sujootee ak yu mel noona nga nekk nit ku njaxlaf gaaw rek jël aw xet wala jege rek wala yooyu rek gaaw dóor ko ko bu dee jiit nga gaaw maanaam dëgg ko rek mu dee su boobaa dara nekkut ca waaye boo nekkee ko xaw a nekk am yambar naan maa ngay wuti xet ak xaw a nekk fee ray nga xaw a yàgg ba dëddu xibla am ca wala dëddu xibla amut waaye jëf ja bëri na ba yàgg ba mu ëpp lii bu la xasee arrivé kon julli ga yàqu na demal bi maanaa nga dem julli jaat boo nekkee nit ku njaxlaf koo xam ne lu la arrivé rek mën nga koo gaaw faj ko ca saasa ba kenn du xam daanaka kon loolu dara newut ca waaye bu nekkee nag tabarkàlla koo xam ne dafa xaw a yambar lool daal kon nag su boobaa bu paree dana dem dana yàpp na julli ga yàqu na après day dem maanaam mu commencé waat julli ga ca commencement ba bana wax jooja wa man shàkk ku sikk ne hal huwa ndax moom fil witri mi ngi ci witar aw fi thaniyati shafi wala mi ngi ci ñaareelu rakka shafa jaalaha na ko def thaniyata shafi muy ñaareelu rakkaab shafa bu paree wa sajada mu sujood baada salaam gannaaw sëlmal gannaaw si gi nag bu sujootee ba pare su ma aw tara mu door a jug nag witar da nga doon julli safa ak witar toujours mu arrivé ay nit dem rek ba ci kanam nga ne waa man bii ma nekk est-ce que mooy witar wala ndax sax moom mooy deuxième mu shafa kon yow jàppal ne mooy ñaareelu rakkaab shafa soo ko defee muy ñaareel nga rukkoo sujood def lépp ba julli ga jeex nga sujood fa baada salaam ba pare mooy sujjóot après sëlmal ba pare door a jug nag kabaar indi witar waaye doo xaar ba witar doo di sujjóot ba'da salaam de foofa ngay uh, maanaam su sujjóotee ba'da salaam mooy ba safaa ya jeexee door nag jug kabaaral witar kon loolu mooy atte képp kuy sikk ci ne bii mooy ñaareelu rakkaxa witar wala mooy maanaam mooy witar bi wala bii mooy deuxième rakkaxa safa loolu mooy atte bi naka noonu bu doon da nga ne mooy première ci safa wala mooy deuxième def ko rek muy première après nga indi deuxième bu paree nga sujjóot ba'da salaam muy après sëlmal door a jug tamit indi witar loolu ba tey mooy saxaate bana wax ja wa man takallama ko wax bayna shafi diggante shafa wal witri witar saahiyan di agi jamaj fala shay'a déet dara di ko war wa in kaana bu nekkee amidan di aji tay ko kuriha sibeef nañ loolu waaye wala shay'a déet dara di ko war dañoo bëggoon ku julli shafa buy jeex rek gaawal nga kàbbaar julli witar saa nga fay dugal genn kàddu bu fa wax dara léegi nag su fekkee da nga faa wax rek ci jamaj su boobaa dara newul te jéggal nañ la ko waaye su fekkee yaa fa wax te fekk yaa ko tey ci diggante safaak witar nga wax fa waxi àdduna joo tey su boobaa nag loolu moom def nga loo xam ne luñ sib la luñ sib nag fu ñu ko waxee mooy loo xam ne soo ko bàyyi woon moo gën maanaam nga di ko def nag waaye du tax maanaam ñu bind la ca bàkkaar bàyyi na wax jooja mi ngi wax ak kuñ raw wal masbuq kuñ raw in adraka bu jotee maal imaami ànd ak ilimaan aqala lu gën a néew min rakkaxatin cib rakkaxa fala yasjudu du sujjóot maahu ànd ak ilimaan laa qabliyan du sujjóot qabla wala baadiyan du jaakeen muy sujjóot sujjóotu baada fa in sajada bu sujjóotee maahu ànd ak ilimaan batalat yàqu na salaatuhu julleem nga ndax yow doxagoo maa moom ku ñëw fekk imaam ci ñeenteelu rakkaxa mu rukkoo ba siggi ngay door a ñëw xam nga yow kon fekkee sujjóot ya kon yow doxagoo maa moom kon imaam buy sujjóot mbiram qabla sa yoon nekku ci jugal yow nga jéem a fay ñeenti rakkaa yem la rawee su sujjoot baxda sa yoon nekku ci jugal nga dem fay ñeenti rakkaa yam la rawee su fekkee nag dangaa ne man kat comme euh, am na lu ma fekkee muy ñaari sujjoot yu mujj ya euh, maanaam ci rakkaa bu mujj bi tax nga dem ànd ak moom ci sujjootu baxda maanaam su boobaa kon la nga xamoon ne que néew yàqu na ndax lu tax mu yàqu mooy yàqu gi nag lim lay wàññi mooy kon boo jugaatee da ngay commencé xaat julli ca liqaam te lii amoon moo la mayoon ba yow nga doon jug rek jokk waaye sax dootoo doo naroo woon a doo naroo woon a liqaamaat waaye nag comme yow fekkee lu matul rakkaa ci dernier rakkaa ba moo la yóbboo ngay dem di sujoot sujootab euh, maanaam baxda ànd ak ilimaan wala ngay dem di sujoot sujootab xabla ànd ak ilimaan ci ñàkk a xam wala sax yaako ko tay wala ak réere la ndax réere ak tay tamit ñoo bokk xatte ndax da nga ko waroon a xam dem laajte ji ko su ko defee kon nag loolu day waral bu paree da ngay dem sosaat julli ga commencé ci liqaam léegi nag su fekkoon ne defoo ko woon nag li nga am ak néew moo lay yóbbu xaale ba du jar ngay liqaam waaye du teree nag da nga fay ñeenti rakkaa yu mat sëkk ndax jotuloo dara kon loolu mooy saxate moo tax mu ne wal masbuuqu kuñ raw wa in adraka bu jotee maa imaam yi ànd ak imaam aqala lu gën a néew min rakkaatin ci rakkaa duut maa moom kon fa laa yasjudu bum mu sujjoot maa woo ànd ak ilimaan laa qabliyan du caa kenn qabla wala baadiyan du caa kenn baada léegi nag bu réeree fa in sajada bu sujootee maahu ànd ak ilimaan batalat yàqu na salaatuhu julleem nga mooy ne lam amoon naka néew loola yàqu na kon li muy def mooy bu imaam sëlmalee moom na sëlmal te jug commencé haat julli ga ca liqaam waaye nag bu nekkoon ku xam bu imaam di sujoot xabla yooyu yoonam néew ca moom day jug rek jéem fay la ko imaam raweexoon muy ñeenti rakkaa yi ndax moom jotagul dara bu jullee ñeenti rakkaa bu jullee ñett tamit jotagul dara bu paree mu jug mu fay ñett bu dee jullee ñaar comme suba mu jug fay ñaar xam ne jotagul dara ndax ku jot ci julli lu matut ab rakkaa maanaam yow bokk goo ci julli ga te julli ku ci bëgg a bokk na nga fexe ba rakkaa ba nga fekkee ba waaye rakka boo fekkee rukoo ba rek mooy ba ñu téye seen wóom yi sëgg nga fekkee ko ba ca yaram dal ca yow moom julli a bokk nga ca yaa ngi ca biir su fekkee ne bu dernière ba nga fekkee yow bu imaam jugee mu julleeg ñeent ñett rek ngay fay su fekkee julleeg ñaar la boo jugee benn rek ngay fay bu dee julleeg ñett la soo jugee ñaari rakka rek ngay fay waaye ñëw ba ngay ñëw ak fekk imaam rukoo yow nga gaaw ne yaa ngay rukoo far imaam siggi ne sami allahu liman hamida léegi yow nga jug ànd ak moom continuer mu toog euh, sujjóot nga sujjóot mu sujjóotaan nga sujjóot mu taaya nga taaya kon gi dara ba tey waaye nag bu fekkee dafa am sujjóot bu muy sujjóot rek di xablaak yooyu yow jugal rek nga gaaw fay li nga xam ne moom nga moom la la rawee woon muy baada rawatina buy baada nga xam ne da ngay sëlmal ba pare door di ko def dégg nga mu ngoog léegi nag boo joteel dara lay wax nag wa in adraka su fekkee dafa jot rakaatan ab raka kaamilatan bu mat sëkk li nga jot mën na ab foo fekkee xéeru ko sa yaram dal ca rek yow bokk nga ca rakkaxa booba aw ak sara mbaa lu gën a bëri rakkaxa ñu fekkee nga ñaar a ah saga dana sujjóot maa woo ànd ak ilimaan xabli ya ko jóg xabla ndax xabla avant sëlmal la sëlmal amagut wa axara mu yéexe baxda ya ko jóg baxda ndax baxda mooy gannaaw sëlmal te kenn du sëlmal te fekk sa julli jeexagut nu bala ba bu baxda yi mën na ko yéexe xattaa yu tem ba ta matalee salaatoo julleem nga bu pare fa yaskidu mu sujjóotal ko boppam baxda salaami yi gannaaw bi mu sëlmalee moom ci boppam kon nag soo jotee lu mat ab rakkaxa moo xam benn nga jot wala ñaar moo xam jamaj bi imaam di sujjóot fekkee nga ko moo xam fekkee huloo ko dafa la yóbbuwaale comme yow jot nga ab rakkaa rek maa moom nga su boobaa buy fekkee dafay sujjóot xabla sujjóotal ànd ak moom ba pare bu bu sëlmalee yow bul sëlmal nga door a jug yow fay ñetti yam la rawee woon mbaa ñaar ya yaa xam su fekkee léegi nag baxda la buy sujjóot ba ne asalaamaaleykum rek yow jugal bu ko faalee comme xam nga lu mat benn rakkaa jugal nga jug fay ñett ya buy julleeg tusubaar mbaa tàkkusaan mbaa maanaam gexe su paree nag yow ba nga fay ñett ya ba pare nag ba sëlmal ne asalaamualeykum nga door a root sujjóot root sujjóotaat su ko defee taaya door a sëlmal ndax loolu mooy nekk sa atte ndax baax da mooy après sëlmal te yow war a goo mën a sëlmal te fekk sa julli jeexagut buy xable nag boo gisee nga man koo defandoor ak moom xable moom avant sëlmal la ndax moom sëlmal xamagu fa moo tax moom mën ngaa sujjóot ànd ak moom bu demee nag ba ne ma ngay wax asalaamualeykum rek nag yow jug yow doo ca waxante asalaamualeykum jug yow dem fay la nga xam ne moom la la rawee woon comme fekkee nga dara ca julleeg imaam nga ba xam ca lu mat ab rakkaa su ko defee moo xam jamaaj bi fekk na la fa moo xam fekkul la fa kooku sa yoon néew ji moom moom ni nga xamee ne yow boo xamee jamaaj noonu la koy xenoo moom tamit boo xamee jamaaj noonu la yób noonu la yóbbu xaale nga war koo defandoor ak moom buy xabla su fekkee baxda la nga baxi ba fay yow defal ko sa bopp kon loolu mooy atte ba léegi nag fa in sajada bu yootee maxal imaam ànd ak ilimaan fekk moo ko tay batalat yàqu na salaatoo julleem nga jot nga ab rakkaa wala ñaar sa imaam di sujjóot xabla yow sa su imaam di baax da nga dem kon ànd ak moom ca baax da ja ku sa julli jeexagut looy sëlmal yaa ko tay wala da koor koo sa julli ga yàqu na su fekkoon ne moom tayuloo ko dana la wax jama fekkoon ne ngaa juum dana la wax jamaj ba dana la wax atte ba wa in kaana bu nekkee sa yéen di agi jamaj tax nga sujjóot ak moom baxda waaye da nga koo fàtte sa ge da mën ngaa sujjóot baxda salaam bu paree ngay jug fay yett yam la raweexoon rek wala ñeent ya wala benn ba su paree yow nga xam ne yokk nga nag sujjóot lu ngi tuddee baxda salaam ndax sëlmal nga te sa julli jeexagut waaye su fekkee ne yow yaa ko tay sa julli gi yàqu na ndax yaa ngi sëlmal di di jeexal sa julli gi te fekk moom jeexagut su fekkee da nga koo ba tey sa julli gi yàqu na ndax diina jël lu lañ ko war a xam dañ ko war a laajte li tax réere mën ta ñu ñëpp mënuñoo jàng ñu ne waaw fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waaye mënoo wax ne man mënumaa jàng mënumaa laajte te li ngay doxal ci sa mbiram àdduna bala nga caa dugg dara loo xamut dem laajte ji ko boo ne da ngay dem ne yaa ngi ñaani visa ne man commerçant la da nga laaj bi maanaam ambassade ba yan kayit lañ lay laaj nga dem jël ko commencé seet maanaam formalité yi nañ koy defaree waaye doo xëy rek dem ñaani diine tamit bala nga cee dugg ci dara dangaa war a fexe nga dem laajte ji ko su fekkee jànguloo ko loolu sax Laxdari waxoon na la ko ca commencement wu téere ba baxi a wax jooja wa isa saha bu jamajee almasbuqu kuñ raw baxda salaami imaam yi gannaaw sëlmal ak ilimaan ah fa huwa moom kal musalli mook aji julli wax doxu moom kenn ñoo xam imaam jeexal na jeexa ba sëlmal yow xamoon nga benn rakka wala ñaar imaam sëlmal ngay jug di fay yi nag la imaam raweexoon yàlla dogal nga yokk ci julli ga wala nga wàññi ca wala nga boole ca yokk ak wàññi kooku sa yëfi bopp la soo ca boolee yokk ak wàññi ca ñetti rakka ya wala benn bala ba ngay fay su góotal maanaam xabla salaam su fekkee dang nga caa wàññi yaa xam sujootal xabla su fekkee da nga caa yokk sujootal baxda waaye imaam moom dootu la ko xenool imaam moom lam la mënoon a xenool mooy li nga xam ne da koo roy ci moom ba nga xam ne yaa ngay julli ca moom boo ko àndalee koog moom waaye li nga xam ne bi ngay jug di ko fayal sa bopp la la arrivé yoonu ilimaan nekkagut ci yow maanaam branché wutuloo ci imaam débranché nañ la baxi na wax jooja wa ida tarattaba su fekkee dafa toftaloo alal masbuqi ci kuñ raw di yoon ko jug baxda min jihaati imaam yi mu jëlee ko ci wàllu ilimaanam wa xabli yun ko jug xabla min jihaati nafsi yi mu jëlee ko ci wàllu boppam aji saawoo doy na ko xabli yu ko jug xabla yow bi ngay ànd ak ilimaan ilimaan amoon na baada bu mu waroon a sujjóot moo xam yow fekkee nga la waral xew-xew ba moo xam fekkeewuloo ko te wax naa la comme xam nga ab rakkaxare bu koy imaam di sujjóot jugal yow fay boo paree door ko sujjóotal sa bopp yow na bi ngay jug di fay tamit ndeke yow tamit wàññi arrivé na rek ndax xa nga ñaari rakka waroon a toog taaya nga ko jug wala sax sa deuxième rakka ba fàtte nga ci aw saar wala sax baxi nga lu man ñetti kaa mbaa ñeent wala nga baxi sax lu mel ni sami allahu liman hamida ak yu mel noonu wala nga baxi bàyyi sax lu mel ni taaya ba kon yow dafa mel ni am nga ak wàññanti goo xam ne yow la concerné yow kenn bi ngay mottali am yokk goo xam ne ca ilimaan nga ko jëlee woon ilimaan ma ko amoon moom kenn yóbbuwaale la ca su boobaa nag wa boo demee boo demee nag ba julli ga yow jeex maanaam mën ngaa sujjóot xabla salaam mooy avant ngay sëlmal ci ngay sujjóot mu yokk ak wàññi la rek nga sujjoot xabla rek bu ko defee mu mu mu mu mën a mat sëkk loolu rek nga koy nga koy fayee yow daa xam ne lu la war ci ilimaan xam lu la war ci sa bopp lële baxda la lii xabla la kon booleel yëpp kay sujjoot ko xabla rek ndax jàngoon nga ne wa man naqasa wasaada sa geda xabla salaam kon loolu mooy sa xatte moo tax mu ne bàyyi na loola wa man nasiya ku fàtte rukoo a rukoo wa tazakkarahu mu fàttaliku ko fi sujjoot ci waxtu wa muy sujjoot rajaa na dellu qaa'iman di aji taxaw wa yustahabu soppeef nañ la woo ñeel ko an yu'ida mu baamu shay an dara minal qiraati ci jàng ya summa yarka'u topp mu door a rukkoo bu paree bu julli ga jeexee wa sajada mu sujjoot ba'da salaami gannaaw sëlmal yow kat dangaa jàng fatiha ku saar ci rakkaxam bu njëkk ba wala ñaareel ba wala nga jàng fatiha rek ci rakkaxa bu ñetteel wala ñeenteel ba war a rukkoo nga fàtte ko rek root sujjoot léeg-léeg moo arrivé nit nga dem moo xam sujjoot bu njëkk ba nga nekk wala bu ñaareel ba sa xel door dañ ne yee man kat ndeke sama rakkaa bi sax rukkoo aguluma ko di kon bahil rukkoo ba bahil kon sujjóot ba nga jug taxaw soo jógee bëgg nañ nga jàngaat tuuti ci saar bul jàngaat fatiha waaye jàngal dara ci aw saar rek donte la ñetti baat ñeent la nga door a rukkoo ndax dañuy bëgg rukkoo nekk ci gannaaw jàng soo rukkooxee ba pare nga siggi ne sami Allahu liman hamida ba sa cër yi dal nga dem nag root sujjóot toog su jootaat rakka ba moom door a valable nga continuer sa julli ba sa julli gi jeex bu julli ga jeexee nag nga sujjoot ba'da salaam ndax maanaam yokku nga ndax boo ko seetee maanaam sujjoot bi def nga ko lu mat ñaari yoon def nga kon lu mat ñetti yoon ndax yaa ngi woon ci ab sujjoot boobu valable toon taxoon nga ba ko demoon rukkoo yi daal di ñëw sujjootaat su ko defee nag loolu moo waral ngay sujjoot ba'da salaam ndax da ngaa yokku ja wa man nasiya ku fàtte sajdatan sujjoot wa tazakkaraha mu fàttaliku ko ba'da qiyaami gannaaw ba mu taxawee ba taxaw la ko door a fàttaliku moo xam jàng na faatiha wala jàngagut moo xam faate ga jeex na wala jeexagut moo xam saar wa jeex na wala jeexut waaye daal rukkoo xaatagut rajaxana dellu jaali senti aji toogi mu dem toogi wasage daxa mu sujjóot sujjóot ba mu bàyyi woon ah ñu ne faw foog mu toog ñu ne toog mënta ñàkk mu ne ah kay rek mu nekkoon xat jëla sa doon toog xablal xiyaami njëkk taxaw ba kon falaa yoxe du baamu sujjóota juloo sa toogaay ba yow kat sa rakkaa bu njëkk dangaa rukkoo sujjóot benn yoon ba nga sujjóotee benn yoon rek jug gaaw taxaw toogoo fa te ku ne xam ne su jot ñaari yoon la ba nga sugatee benn yoon rek jug taxaw commencé jàng fatiha moo xam jeex na wala jeexagut wala commencé nga ko moo xam commencé goo ko moo xam jeex na wala saar wa jeex na waaye daal en tout cas daal rukkoo goo sa deuxième rakkaxa ba rukkoo agoo sa xel daj na yee man dekee rakkaxa bi ma jugee sax di benn sujood laa ko def baxil li nga doon def lépp da nga dem toog da ngay dem rek toog carrément ndax toog boobu da koo bàyyi woon te farata la da a toog sa cëri nga toog na ba sa cëri dal nag nga door a dem nag sujjóot sujjóotu ñaareel ba su sujjóotu ñaareel ba jeexee ba nga xam ne pare na nga door a jug nag taxaw dem maanaam jàngihaat fatiha jàngaat saar continuer julli ga bu julli ga jeexee nga sujjóot baxda salaam kon nag loolu mooy atte ba su fekkee ne nag yow nag toogoon nga maanaam dangaa sujjóotoon ba pare toog ba sa ca ci cër yi dal nga jug waaye sonnoo sujjóot sujjóotu ñaareel kon nag boo ko fàttali ko fekk dugg nga ci deuxième rakka ba waaye rukkoo xaatagoo sa xel daj ko baxi li nga def ta nga root rek dem su jooti ko doo fa toogaat ndax toogoon nga ba pare loolu moo tax mu wax loolu baxi na loola wa man naseeku fàtte sagitane ñaari sujoot xara na root saagi dan di agi sujoot su fekkee na ngaa rukkoo rek au lieu nga waroon dem root sujoot toog sujootaat yow sax sujoot far defoo ko ngaa rukkoo rek far jug taxawaat commencé jàngaat fatiha mu jeex nga commencé xaw saar waaye yàlla dogal na rukkoo xagoo ca deuxième rakkaxa ba sa xel daj ne man ndeke sama premier rakkaxa bi ma génn sax di ñaari sujjóot dama ko cee bàyyi kon nag baxil jàng yi nga nekkoon ak taxawaay ba nga nekkoon te nga dem root directement dem sujjóoti ngay sujjóoti rek doo fa toog de ndax sujjóotab toogi dem di sujjóoti toog xamut foofa toog kay fi mu xam mi ngi xam ci diggante ñaari sujjóot yi moo waral comme ñaari sujjoon nga baxi soo ko fàttali ko fekk deuxième rakkaxa ba fasoogul rek baxil li nga doon def rek ta nga dem directement dem sujooti girul nga fay toog moo tax mu ne wala mu yëgil si bu mu fa toog ndax sujooti foofu toog xamu fa su paree na wayes gi du mu sujoot fii jamee saalika ci att yi ma wax la yépp baxda salaam yi gannaaw sëlma ndax dafa yokk bàyyi na wax ja wa in tasakkara bu fàttalikoo nag sujoot a sujoot ba baxda si rasihi gannaaw bi mu yëkkatee boppam ba mi ne rakkaxate ca rakkaxalatee ba nga xam ne taliha méng na ko ah demaa fàtte nga sujoot nga dem a dem ba dugg ca beneen rakkaa ba ba nga xam ne tey bi nga koy fàttalikook si yëkkati nga sa bopp bi ci rukkoo walla nga yëkkati sa bopp bi ci sujjóot ah kon nag yàqu na tamaadaa da nga continué nag continué ala salaata ci julleem nga walam yar jeex bu mu delluwaat di ko defari wa wa alga na neenal rakkaata sahwi rakkaab jamaaj ba wa zaada mu dolli rakkaatan ab rakkaa fi mawdiha ca barab ba yan muy aji jokkoo ko bële bu paree wa sajada mu sujjóot xabla salaami njëkk sëlmal yow nag su fekkee dangaa bàyyi woon sa première rakkaa ci misaal danga cee bàyyi woon ab sujjóot wala sax nga bàyyi ca ñaari sujjóot dema dem ba ca deuxième rakkaa ba jàng faatiha saar ba rukkoo ba pare ba sa cër ya dal nga siggi sa xel door a daj ne mankat kat ndekkee sama rakkaa bu njëkk sujjóot sax defuma ko ci ah su boobaa nag loolu bu la arrivé première rakkaxa ba yàqu na mëntuñ ko defarati su boobaa nag defal ne sa deuxième bii mooy sa première soo comme mooy sa première nag maanaam jàng ca fatiha ku saar su ko defee nga jugaat jàngaat fatiha ku saar su ko defee nag nga toog tamit taaya fa door a jug indihaat yeneen ñaar jàng ca fatiha rek su fekkee gexe la wala muy tusubaar wala muy wala muy maanaam tàkkusaan su julli nga jeexee nga su jóot li ñuy tuddee maanaam xabla salaam ndax boole nga yokk ak wàññi kon loolu mooy atte ba kon daal képp ku baxi ponk ci ab rakkaa fatiha la walla rukkoo la wala sujjóot la feek rakkaa bi ku tegu ci moom rukkoo xaata guloo ko man ngaa baxi li nga doon def nga dem defari loola soo paree def li nga defaatoon continuer su paree julli ga dana valable waaye su julli ga jeexee baax da salaam ngay sujjóot waaye képp ku baxi ponk ci rakkaa moo xam rukkoo la moo xam sujjóot la moo xam fatiha te bi nga koy fàttalikook rakka bi ci tegu xas nga téye sa woom yi ba siggi su boobaa nag moom rakkaxa bi nga fàtte woon ponk booba di fatiha wala sujjóot ba wala rukkoo ba yàqu na jàppal ne kon bii maanaam bu doon booba mooy benneel jàppal ne bu ñaareel bii moo mujj soppeeku benneel su fekkee booba moo doon ñaareel jàppal ne bu ñetteel bii moo soppeeku ñaareel su julli ga jeexee nga indiwaat beneen rakkaa muy juróomeel jagee ko bu yàqu bu damm booba nga xam ne dañ caa bàyyi woon ab ponk te mënuñ koo dabaatal ndax rakkaxa méng doxaat na ca digg ba su paree julli ga jeex nag nga sujjóot xabla salaam ndax dangaa boole yokk ak wàññi bàyyi na wax jooja léegi nag wa in kaanat bu nekkee minal uula yey ni bokk ci ñaari rakkaa yu njëkk ya wa tazakkara mu fàttaliku ko baxda xaqadi saalisati gannaaw fasu ñetteel ba loolu masalaam boppam la waaye dafa xasaf wax ji ca tegu yépp yow sa rakkaa bu njëkk ci nga baxi rukkoo wala sa rakkaa bu njëkk ci nga baxi ab sujjóot ci misaal nga dem a dem ba sa bu ñaareel nga dem a dem ba sa bu ñetteel ba fasu bu ñetteel ba bu ne fasu na nag mooy ne maanaam rukkooxal nga ko ba sa cër ya dal ca ba nga siggi sa xel door di ko daj lu may wax siggi yëpp maa ngi sàmm sàmmanteeg masalaay ibnu qaasu moom dafay wax ne dafa am foo xam ne Euh, fokk nga siggi rakkaxa door di ko faso donte leen ñu bari ci fuqaha yi dañ ne boo xasee rukkoo rek ba sa cër yi dal rek rakkaxa ba fasu na waaye damay sàmm waxanteeg ñaari wax yëpp su ko defee na yow sa rakkaxa bu njëkk da caa baxi ab sujoot wala nga baxi ca ab rukkoo dema fàtte ko fàtte ko ba dugg ca bu ñetteel ba gannaaw ba nga rukkooxee ba sa cër ya dal wala nga rukkoo ba siggi sa xel door di daj ne sama ñaari rakka yéle njiitu woon am na benn boo xam ne baxi naa ca rukkoo wala sujjóot wala fatiha ah kon nag su boobaa jàppal ne ñaar ya benn ba benn ba loola arrivé yàqu na su fekkee ca bu njëkk ba la jàppal ne bu ñaareel bi mooy sa bu njëkk kon nag sa bu ñetteel bii xas-fasu jàppal ne mooy sa ñaareel comme mooy sa ñaareel nag te waroon nga caa jàng fatiha ku saar te yow fatiha rek nga ca jàng ndax dangaa foogoon ne ñaar yëpp baax nañ waaye gannaaw ba nga ca jàngee fatiha rek ba rukkoo la sa doora a sa xel door a dañ ne ndeke man sama ñaar yi am na bu ci yàqu di kon nag li nga mën a dabaatal mooy toogaay ba soo siggee ba ne sami allahu liman hamida ba root sujjóot bul fàttee toog foofa taaya donte le bi ko génn toogoon nga ci waaye toog ba ba valaa balutoon kon nag sa bu ñetteel bii ci nga war a toog nag toog dëgg-dëggal taaya ca ndax jàppal ne moom ci sa boppam mooy sa ñaareel comme nag mooy sa ñaareel su ko defee nga toog fa taaya su julli ga soo sa soo ca baxee ko nga jug jàngaat fatiha rek jugaat jàngaat fatiha rek bu dee jullee ñeenti rakkaa la su ko defee nag bu julli ga jeexee nga sujjóot xabla salaam ndax boole nga yokk ak wàññi yokk nga juróomeeli rakkaa boo jangee rakkaa damu damu ba waaye wàññi nga sa ñetteelu rakkaa bii nekk di ñaareel pire te fekk muy ñetteel ci yëngatu yow fatiha rek nga ca jàng jàppoon ne mooy ñetteel ba waaye bi nga téye sa wóomi nga door a xam ne ndeke sama ñaar benn ca yàqu kon bii ndeke kon di ñetteel mooy ñaareel yow na fatiha nga ca jàng jàngoo ca saar kon nag su boobaa looloo waral nga wàññi kon boole nga yokk ak wàññi moo waral xabla salaam ngay sujjóot kon nag képp ku sa ñaari benn yàqu ca te bi nga koy fàttalikoo sa bu ñetteel bi troisième bi fasu na su boobaa bul fàttee toog ca bu ñetteel boobu di ñaareel ndax benn yàqu moo waral muy ñaareel soo demee na nga indiwaat yeneen ñaar bu julli ñeenti rakka bu julli nga jeexee nga sujjoot qabla salaam su ko defee ndax dangaa ngaa boole yokk ak wàññi. moo tax mu ne eh, wal wala sax wa ba'da salaami loolu tamit masalaam boppam la wa ba'da salaami da ngaa dem a dem ba sëlmal ba nga sëlmalee ba pare rek ci saasi sa xel daj ne yé man sama ñaari rakka yu njëkk yële am na ci boo xam ne maanaam dama cee fàtte sujjoot moo xam ñaari sujjóot la wala benn wala dama caa fàtte rukkoo wala dama caa fàtte fatiha nga dem rek ba sëlmale sa xel daj ko passé gut jugal gaaw nga kàbbaar soo kàbbaaree nag léegi nga jug jàng fatiha ku saar su ko defee ndax moom nga moo la rawoon fële soo jàngee fatiha ku saar nga rukkoo sujjóot nag waaye fii nag moom bu boobaa baax ba'da salaam ngay sujjóot ndax dangaa yokku yokku rek moo am foofa kon danga dem ba sëlmal sa xel door koo daj jugal nga dem jàngi fatiha ku saar su ko defee ne jangee ko maanaam bu damm ba su julli nga jeexee nga sujjóot baax da salaam kon nag atte baa ngoog wa in lam yàq wa in lam tàkkun su fekkee nag nekkut minal uula yéy ni ca ñaar yu njëkk ya nekkul ca ñaar yu njëkk ya masalaam boppam la bu nekkul ca ñaar yu njëkk ya kon ca troisième ba la nekk wala mu nekk ca quatrième ba dangaa dem ba dugg ci quatrième sa xel daj ne man sama troisième bi ma génn bàyyi naa ci ab rukkoo wala bàyyi naa ci ab sujjóot wala bàyyi naa ci sax faatiha jànguma ko kon nag jàppal ne sa quatrième bi mooy sa troisième su ko defee nag comme mooy troisième bu paree da ngay indi xaat beneen rakkaa ngir maanaam man koo jangee pour mën a voilà balal julli gi mën a wér fii nag tamit bu jeexee nga sujjóot fi ba'da salaam ba'da yokk rek moo fa am. aw kaanat sax wala mu nekk min huma ca ñoom ñaar ca ñaari rakkaa yu njëkk yàlla bokk buy loolu wax na la atte ba waaye wata waaye nag lim xuuteeg fii wata sakkara da nga ko fàttaliku qabla xaq di saalisati njëkk ñetteel ba di fasu nga ko fàtte xam nga fële ca ñaar ya bokkoon waaye bi nga koy fàttalikoo ñetteel ba fasu xoon na waaye fii bi nga koy fàttalikoo ñetteel bi fasoogut comme na ñetteel bi fasoogut yaa nga ca taxawaay ba jàng nga faatiha rek sa xel daj na yé man sama ñaari rakkaxa yu njëkk yi ndeke benn yàqu na ki ndax dafa am bu ma ci bàyyi sujjóot wala rukkoo kon jàppal bu ñetteel bii mooy sa ñaareel kon nag li na suurata naka saar wa wal juluus ak toogaay ba lam yafuuta faataguñ comme que ñetteel bi fa fasoogut mooy rukkoo xaguloo ko waaye waaye sa ñetteel boobu bu ca bu ca fàttee jàng saar gannaaw ba fatiha ja jeexee ndax mooy sa ñaareel li ko mooy li tax ñaaree benn moo ci yàqu waaye waay sa boobu banaaw boo ci boo ko boo ko jàngalee fatiha ku saar ba rukkooxal ko su jootal ko waaye waaye bu fa fàttee toog ndax toogaay ba passé gut mooy sa moom la su ko defee nag nga indi sa toogaay ba bu julli nga jeexee nga sujjoot baax de salaam ndax dangaa yokk kon nag atte baa ngoog moo tax nag masala moom lay wax ne aw kaanat wala mu nekk min huma ci ñoom ñaar ca ñaar yu njëkk ya benn moo ci yàqu wata sakkara mu fàttaliku qabla aqdi saalisati njëkk ñetteel ba di fasu ci la ko fàttaliku ah kon kay faatagut li ana surata naka saarwa ñu ne ah wal julus ak toogaay ba lam yafuutaa ñoom ñaar faataguñ lii mooy masalaam lam yafuutaa ñaareel bu nit jàngee laxdari rek da ngay ñëw ne ko ndax xam nga lan mooy lam taa fekk sax ndeke jafewut ni ñee ko jàpp di ko jafee la jafeel ba mel ni lu jafe rek kon loolu rek mooy xatte ba bana wax jooja waman sallama ku sëlmal shaakan di aji sikk fii kamaali salaati ci mat ak julleem ba talat yàqu na salaatoo julleem nga sama julli gi mën naa matut mën naa matut ba ne asalaamaaleykum julli ga yàqu na jugal nga dem julli jaat bana wax ja wa sëxu jamaj fii salaatil xaddaay ki julleeg fay ka wi moog jamaj fii salaatil addaay ki julleeg jox ñoo xem julleeg tusubaar gala faatoon démb nga di ko fay tay jamaj ca moog julleeg tusubaar gi teew tay nga di ko julli jamaj ca ñoo xem soo yokkee sujootal baada boo wàññee sujootal qabla boo boolee yokk ak wàññi sujootal qabla ñoo xem xatte kese bu la kenn mënu koo jàng ci sujjóot seetal rakkaa ba su fekkee ba ko tegu méng na sànni ko remplacer ko beneen su fekkee bi ko tegu méngoogut baxi ko ta nga de baxil bi nga nekk nii ta dem defari ko jeex na loolu rek la léegi nag wa sëxwu jamaj fi naafilati ci naafila ka sëxwi mook jamaj fil fadli ci farata ñoo xem jamaj ci farata ak jamaj ci naafila ñoo xem xatte ñu ne faw mu ne a illa fi sitti masaila liru juróom-benni masala juróom-benni masala rek la ñu wuutee juróom-benni masala ya nag ba ci njëkk fatiha mooy ku jamaj ci naafila ci jàng fàtte fatiha wa suurati wala mu fàtte ca saar wa sirri wala mu fàtte ca yeelu wal jëhri wala mu fàtte ca biral wa ziyaadati rakkaatin wala mu dolli ca ab rakkaa wa nisyaani baadil arkaani mbaa mu fàtte lenn ca ponk ya lu mel ni rukkoo mbaa sujjóot mbaa fatiha intaala bu yàggee léegi na mu commencé détail juróom benn yi de ku ci jamaj ci naafila du bokk boo ci jee ca farata léegi na commencé na ko détail mu koy détail nag ne fa man na ku fàtte fatiha fatihata fatiha fi naafilati ci naafila bu ko defee ta wata sa karamu fàttaliku ko baada rukkooy gannaaw ba mu rukkooxee ba pare la door a fàttaliku ne sama naafila gii kat man ma ci fatiha ah tamaa daan na continuer bu julli ga jeexee wasage dama sujoon qabla salaami njëkk sëlmal xam ngeen ne la wuute na ak farata farata xam nga ne ku ci bàyyi fatiha wax dëgg yàlla sujoon mënu koo jàng moo tax mu ne bi xilaafil fari la wuute na farata bu doon farata fa innahu naka bu doon farata yulqi day neenal tilka rakkaata booba la rakkaa rakkaa boobu lay neenal bu ko defee nag wa yasiru mu dolli uxra beneen rakka wa yatamaada mu continuer wa yakunu na nekk sujjóodo sujjóodam ba kama zakarna comme nañ ko jàngatee woon fii taariki sujjóod ci ku baxee sujjóod loolu mooy boo baxee ab sujjóod ba nga xam ne dabaatal ko ta mënta nekkati ba nga sanni rakkaa ba ba indil ko ab rakkaa la mu ngir jangee ko ko su boobaa yaa ngi sujjóot li ñuy tuddee ba'da salaam bu julli nga jeexee nga sujjóot ba'da salaam kon na gis nga ko jamaj foofu du beer na kon naafila sa rakkaa bu njëkk nga jàng fatiha ku saar deuxième ba ñëw nga fàtte fatiha ja rek jàng saar wala sa ñoom ñaar ñëpp jàngoo ca dara nga tëb rek dem rukkoo yi su boobaa kon da ngay sujjoot xabla salaam ndax da ngaa wàññi waaye nag bu doon farata de moom raka booba fokk moom ngay sànni su fekkee bi ko tegu bi ko bi ko méng rukkooxal nga ko su fekkee bi ko méng rukkooxala guloo ko nga baxi li nga doon def dem jàngi fatiha ja dem defaraji ko mu ngoog moo tax mu ne kon loolu mooy atte ba wa man nasiya ku fàtte suurata saar awil jëhra wala biral awil sira wala yelu fi naafilati ci naafila wata sakkara mu fàttaliku ko baada rukkooy ganaa ba mu rukkooxee tamaadaa na continuer e wala su de suñu xal di ko war julleeg naa fi la nga caa fàttee jàng saar wala nga waroon caa yeelu dem muy julleeg guddi xam nga dañ ko war a biral yow nga far yeelu ca wala muy naafila ak bëccëg yi naafila ak bëccëg foo ko fekk bu xamul xutba borom dañuy bëgg mu yeelu ko naafila goo dégg ñu koy def bëccëg rek fa am xutba julleeg korite yi muy tëbaski ak korite li mu xam xutbaa tax ñu koy jàng ca kaw na na mu ngoog waaye goo ki gis maanaam muy julleeg bëccëg di naafila rek dañ koy jàng nànk waaye boo xamee xutba rek dañ koy jàng ca kaw yow nag naafila bëccëg la xamul xutba ñu waroon koo jàng nànk nga dem jàng ko ca kaw naafilaay guddi moom dañuy bëgg nga koy jàng ca kaw yow far nga dem jàng ko nànk yow nag fàtte nga ko ba fa xas nga ko sëgg nga ba pare tamaada day continuer bu pare wala sujjóoda alayhi sujjóot du ca war xam nga ne loolu bi xilaafawut nag farata xam nga ne bu doon farata nga fàtte aw saar ci rakkaxa bu njëkk baa bu ñaareel demal nga sujooti xabla salaam wàññi nga bu doon farata demee ni timis mbaa gexe nga war koo jàng ca kaw dem yeelu ko jàng ko wàññi nga demal nga sujooti xabla salaam muy avant sëlmal su doon farata muy takku muy muy tusubaar wala maanaam euh, wala wala wala maanaam tusubaar wala tàkkusaan nga dem jàng ko ca kaw te war koo jàng nànk yokku nga su boobaa kon demal nga sujooti ba'da salaam waaye lii lépp bu la arrivé ci la doo ko sujootal dara jéggal nañ la ko kon loolu xuutee na ba ca tegu wa man xaama ku jug ilaa saalisatin jëm ci ñetteelu rakka fi naafila ci naafila fa in tasakkara bu ko fàttalikoo xabla rukkoo ay njëkk muy rukkoo rajaa na dellu wa sa wasagada mu sujjóot da salaami gannaaw sëlmal léegi dégg nga su fekkee maanaam naafila la xam nga naafila dañu bëgg par ñaari rakka sëlmal yow nga xam ñaari war a sëlmal fàtte ko jug taxaw commencé fatiha ku saar waaye avant ngay rukkoo la ko sa xel daj bàyyi lépp nga toog soo toogee nag daal di toog taaya sëlmal su ko defee nga sujjoot ñaari sujjoot muy baax da salaam kon loolu mooy atte ba xam ngeen loolu ko nag farata de bu doon farata moom fu mu ko fàttali lam ne xoon lay bàyyi léegi nag wa in xaqada bu fasoo saalisate ñetteel ba bi ngay koy fàttalikoo yow ñetteel ba fasu na tamaa daana continuer dootoo mën a toogati da ngay continuer indi ñeenteel waaye nag boo indee ñeenteel su ko defee wasaada mu dooli rabi xata ñeenteel bu julli ga jeexee wasage da mu suyot xabla salaam lu tax dafa boole yokk ak wàññi yokk na ñaari rakka la ñaari rakka sëlmal la te def na ko ñeenti rakka waaye wàññi na tamit taaya ba nekkoon ci digg ba waroon faa sëlmal moo waral kon nag la ñaari rakka sëlmal la yow su fekkee da ngaa xam ñaari rakka wara a sëlmal nga fàtte ko ba dugg ca troisième ba su fekkee bi nga koy fàttaliku rukkoo xagoo toogal nga dem taaya sëlmal bu paree nga sujjóot baax na salaam muy après sëlmal su fekkee bi nga koy fàttalikoo nag rukkoo nga ba pare ba sa cër ya dal nga door di ko fàttaliku ah continuer du ko defee indi troisième bi bu matee nga indi quatrième bi su paree nga taaya su ko defee su jóot avant ngay sëlmal muy xabla salaam xam nga loolu wuute naa farata de moo tax mu ne bi kilaa wuute naa farata fa innahu bu doon farata yarji'u day dellu mata sàkkar saa yu ko fàttalikoo bu ko defee wayes gi du mu sujoot ba'da salaam bu doon farata noonu lay def bu paree mu sujoot ba'da salaam xam ne dafa yokk bàyyi na wax ja wa man nasiya ku fàtte rukunan ponk buñ ne ponk nag mooy farata demee ni rukkoo wala sujjóot ak ya ca aju mina naafila ci naafila moo tax mu nekk rukkoo yi ni ki rukkoo awi sujjóot yi wala sujjóot wala mu yatasakkarta fàttaliku wut ko xataa sallama ba mu sëlmal wa taalata fekk yàgg fala iaadata alayhi déet baamu di ca war loolu nag bi xilaafil farati nag farata fa innahu bu doon farata yuiduha dana baamu ko abadan faw naafila boo ca bàyyeeru ponk muy rukkoo wala sujjóot te bi nga ko demee ba fàtt bi nga ko fàttee yàgg na nga dem ba sëlmal lu yàgg sa xel door koo daj doo ko baamu xaat ndax naafila amul waxtu kenn du ko baamu xaat amul waxtu wuñ koy baamu su boobaa nag kon yow maanaam euh, boo bëggee naafila naafila xaatal waaye doo wax ne may dem fay naafila gi ma yàqule déedéet su ko defee nag kon wuti nag farata bu doon farata nag nga baxi ca rukkoo wala sujjóot nga dem a dem ba julli ga jeex lu yàgg sa xel door koo daj haa julli ga yàqu na demal nga baamu ji xaat tusubaar ja bu dee tusubaar la mbaa tàkkusaan bu dee naafila nag moom doo ca baamu xaat dara ndax amul waxtu bàyyi na wax ja wa man xataxa ku dog naafila te naafila xamidan fekk moo ko tay aw taraka baa mu baxi min ha ci naafila rakaatan ab rakaxa aw sajadatan mbaa benn sujjóot xamidan ta fekk moo ko tay aadaha naka baa mu abadan faw naafila boo ci baxee dara yaa tay baxi ko ndax lu la warutoon boo xasee dugg ca dafa mujj soppeeku ci yow farata moo waral boo ca baxee ab rukoo wala sujjóot ta fekk yaa ko tay carrément boo paree da ngay dem nga naafila jihaat far force soo ko tayutoon nag ba tax nga bàyyi ca loola te bi nga koy fàttali maanaam nga nga sëlmal ba sa pare sa xel door di ko daj ba tey baax na naafile ga baax na ndax kenn du ko baamu xat amul waxtu kenn du ko baamu xat jeex na loolu nag wuti nag farata bu doon farata moom moom loo ca baxi tayoo ko yaa ko tay ba ba ba sëlmal sa xel door di ko daj muy rukkoo mbaa su jóot te xaw naa yàgg julli ga yàqu na demal maanaam nga dem julli jihaat su fekkee ngaa sëlmal bees sa xel door a dañ ne fàtti naa ab rukkoo mbaa su jugal nga kabaar bu ko defee léegi jang jangee ko ab ci ci ci ci boobu nga bàyyi bàyyi na wax jooja waman tanahada ku ku bébbali fi salaati ki julli fala shay'a déet dara alayhi di ko war faw illa an yantiqa ndere mu tudd bi harfin ci xaraf su fekkee ngaa bébbali kay ba yuuxuwaale tudd nga xaraf soo ko tayee julli nga yàqu na soo ko tayut su jotal jootal ba'da salaam muy après sëlmal kon nag moo waral ñu bëgg kuy bébbali na jël eh, loxoom mu dëpp ko ci gémmañam gi bañ a tudd wenn na xaraf bu dee loxo bi la ndeyjoor bi mën na koo dëppee biir gi bu dee càmmooy gi la na ko dëppee biti gi ndax fuqaaw yi dañuy wax ne loxol càmmooy mooy ndabal sobe moo waral biti ga lañ koy dëppee bàyyi na wax ja wa isa saxaa bu jamajee al imaamu imaam bi naq naqsin ci wàññi aw siyaadatin baa dolli sabaxa na sabal bi ca moom maamoom maamoom ya sa imaam kay su fekkee dafa jamaj yokk lu bokkul ci julli mbaa mu wàññee lu ca bokk ne leen ko subhaanallah xamal ko ko su ko defee nag léegi dina la wax nag léegi nuñ koy toppee wa isa qaama bu jugee imaama ko sa ilimaan min rakkaatayni baxee ko ci ñaar rakkaa fa sabbih na nga sàbbaal bihi ca moom ndax foofu dañ faa war a toog taaya fa in faaraqa bu teqali koog arda suuf loxo ya ak bët hoom ya fa at na nga ko topp ah am na ñaari rakkaa war a toog taaya moom mu fàtte ko di jug di bëri bëri ne ko subhanallah ta toog su fekkee ne ndeng ko subhanallah moom mu jug ba loxo ya teqali koog suuf ak woom ya jëratul nga koy waxat subhanallah bu loolu xasee teqali koog moom rek jugal nga topp ko su ko defee yéen ngeen baxi su ngeen demee ba julli ga jeex ngeen sujud xabla salaam xam ne da ngeen a wàññi taaya bi nekk ci digg bi toogaay ba léegi nag wa in jalasa bu toogee moom ilimaan fil ula ci rakkaxa bu njëkk aw fi saalisati mbaa rakkaxam ñetteel foqum na nga jug wala tajlis bul toog maa ànd ak moom rakkaxa bu kenn du ca toog di moo waral bu ca toogee rek jugal yow ne ko subhanallah ta taxaw wala mu xam ñetteelu rakkaxa julleeg ñeenti rakka rakkaxa mu dem ca ñetteelu rakkaxa ba di fa toog yow kon jugal rek ne ko subhanallah ci lay gën a comprendre xam ne dafa war a jug léegi nag loolu mooy nekk xatte ba jugal yow wax ko loola dana ñëw fekk si la dana la wax bu la fekk si luy xatte ba wa in sajada bu sujootee moom ilimaan waahidatan benn sujoot wa taraka mu bàyyi thaniyata bu ñaareel ah fa sabbih na nga bi bihi ci moom ta toog wala taqum bul jug maa woo ànd ak moom sujoot ñaar la di moom mu sujoot benn rek jug taxaw kon toogal ne ko subhanallah toog di ko faqaar mu jug taxaw nga toog rek mu taxaw jàng fatiha nga toog rek mu jàng faatiha jeex mu tegaat ca saar nga toog rek soo demee nag ba saar wa jeex mu nar a dem na ma ngay rukkoo yi jugal baxi fa sujjóot ba yow moo tax mu ne illa an taqaafa ndere nga ragal xaq du rukkoo yi fasag rukkoo ba soo ragalee na nag léegi ma ngay rukkoo yi yow doo sugati tamit du valable baxi rek nga dem fekk ko ca rukkoo faat bi na nga dem topp ko wala tajlis nag bul toog ba'da zalika gannaaw loolu maa woo ànd ak moom da ngeen di dootoo toogati laa fi thaniyatin doo mën a toog ca bu ñaareel ba ndax kat bu ñaareel booba benn moo yàqu moo tax moo waral kon bu ñaareel bi benneel la kenn du fa toogati wala fi rabihatin doo mën a toogati ca bu ñeenteel ba ndax bu ñeenteel ba ñetteel la kenn du fa toog su boobaa nag kon wax nga ko moom mu dem euh, toppul la jug ba tax ngeen baxi ab sujjóot jugal yow fekk ko rek ngeen dem rukkooy ngeen xam ne benn rakka yàqu na su boobaa nag moom dafa jàpp ne baax na ba tax na moom mu toog ca deuxième ba yow jugal rek taxaw ne ko subhanallah ndax deuxième boobu benneel la mu dem tamit ba ca quatrième ba mu toogate fa bëgg a taaye pour sëlmal yow jugal rek taxaw ndax booba troisième la nga taxaw rek ne ko subhanallah bañ koo faale su paree sëlmal nag bëgg a jeexal ca julli ga moom fa isaa salama bu sëlmalee moom jàpp na julli ga jeex na fa zid yow na nga doole yow ko doon saabal rakkaata ab rakka oxra beneen badalan ngir wattee ko mina ci rakkaa la ba nga xam ne alxaytaha neenaloon nga ko baa ni nga jokkee ko bu yàqu bale ngeen baxi woon sujjóot ba su paree nag wa tasjudu nga sujjóot xabla salaam yi njëkk sëlmal da ngay sujjóot xabla salaam ndax wàññi nga ndax boole nga yokk ak wàññi kon fa in kuntum bu ngeen nekkee jamaatan di mbooloo benn rakka boobu yéen ñu doon julli ci gannaaw ilimaan sax mbooloo ngeen te moom baxi na benn sujjóot nga sàbbaal ko mu continuer yow ba nga ragal ne rakka ma ngay fasu nga baxi ko dem toppi ko ah kon nag fal afdalu li gën làkkum ñeex leen an tuqaddimu mooy ngeen gital waahidan kenn yutimu kuy mottali kum ci yéen su boobaa nag benn rakka booba des te imaam ñëwut fekk si leen ci yéen bu ngeen koy julli man ngeen a jël kenn mu jiite leen ko su julli ka jeexee yéen ñëpp ngeen bokk sujjóot xabla salaam te xam ne da ngeen a boole yokk ak wàññi kon nag lii mooy atteb ilimaan ilimaan daal saa yuy yokk yow bu ko topp sàbbaal ko ta toog saa yoo xam ne ma ngay wàññi bu ko topp sàbbaal ko yow te toog su fekkee ci toogaay la fu mu warutoon a toog mu ne ma ngay toog kon yow sa ko da jug taxaw su fekkee ab sujjóot la baxi maanaam mu jug de ko fa bàyyi sàbbaal ko yow te toog di ko fa xaar soo demee nag ba nga xam ne rakkaa bi mu bàyyi woon booba baneen ba ko méng ma ngi koy bëgg a yow boo ko sujjootee tamit du tax mu walaabul bu ko sujjoot baxil li nga doon def ta nga baxil fa sujjoot ba te dem fekk imaam ca maanaam rakkaa booba mu nekk ngeen bokk ko rukkoo te xam ne yàqule ngeen benn su boobaa nag su fekkee loolu ci deuxième bi la leen dal jàppale ne deuxième bi mooy benneel ndax benn bu njëkk ba dafa yàqu su ko defee nag kon su ko defee kon bu toogee ca deuxième ba bul toog ndax deuxième bi mooy première su ko defee tamit bu demee ba ca ba nga xam ne mooy troisième bi xam nga yow dangaa waroon a toog foofa moom mu war a toog waaye moom nanguwut a toog ndax dafa foog ne na kon yow doo toog moom du toog ndax moom moo war a toog toogaa leel la su ko defee tamit nag su demee ba ca quatrième ba yow jàpp nga ne quatrième bi moom mooy troisième ndax benn dafa yàqu mu bëgg faa toog yow bul toog jugal taxaw ne ko subhanallah bu la fekk see baax na bu la fekk si wut sëlmal jàpp na julli ga wér na yow nga jug maanaam nga yaa nga taxawoon maanaam ngeen fexe ba mottali indi beneen rakka remplacé ko bu yàqu ba su ngeen ni mbooloo indi leen kenn mu jiite leen ko su julli ga jeexee ngeen su jot lu ñuy tuddee xabla salaam muy avant sëlmal ndax boole ngeen yokk ak wàññi. kon nag loolu mooy atte bi su ko defee nag wa in saada bu dollee imaamu imaam sagadatan sujjóot saalisatan bu ñetteel ñetti sujjóot xamut di ñaar rek am ci rakka fa sabih sàbbaalal bi ca moom waaye wala tasjud bul sujud maa woo ànd ak moom buy sujud sujudam ñetteel yow toogal ca mu ñaareel ba xaar ko fa ne ko subhanallah bu ko faale su ko defee nag bu jeexee nga xamal ko nag ne ko sujootal ba'da salaam ndax dangaa yokku ab sujoot wa iza qaama bu jugee imaamu imaam ilaa xaamisatan jëm si juróomeeli rakka juróomeeli rakka xamul ci génn julli di su boobaa tabi'ahu na ko topp ci juróomeel ba manta yàq na képp ku xoolu mujibaha lay waral juróomeel ba ki ne boo gisee imaam andi juróomeel de ñeent yi benn moo ci yàqu moo waral mu indi juróomeel ngir jangee ko benn bu yàqu bi ndax sax suñu rakkaa bu njëkk daal ragal naa ne gis naa ne daal imaam rukkoohut ci wala sujootut ci su ko defee nag kon moo tax mu indi juróomeel wala ci bala ba la wala troisième ba moo tax mu indi juróomeel remplacé ko ko yow xoolu nga ne looloo tax kon jugal bul toog aw sàkk mbaa nga sikki sa fii ca moom comme da caa sikk xamoo ci loola leer jugal toppi ko waaye wa jala sana toog nag man képp koo xamee te yàq na xoolu na ziyaadataha dolleeg loola yow mi nga xam ne nag wóor na leen ne le man ne ñeent yépp baaxi naa ci sama xel xamul ci benn buñ baxi rukkoo xamul ci benn buñ baxi sujjóot lépp lu ca war a nekk andi nañ ko kon nag juróomeel bi imaam da koo yokk rek ci coobareem ak ñàkk xamam kon nag yow toogal bul toppi ndax boo ko toppee yaa ngay yokk di ko tey fa moo tax nag mu ne fa in jëla sa bu toogee al awalu ku njëkk ka te mooy ki xóolu na juróomeel bi daraa ko waral wala mu sikk ca ko warul toog fa waral war a fa war a jug toppee waqaama toog saani ñaareel bi ta mooy ki ne bi dara waralut ko ñeent yëpp valable na ku mu ci ñi ku ci xuuteeg li nga waroon a def rek da bat la da yàqu salaatu julleem nga ay salaatu xumaa rek ki war a toppe saa yu toogee julleem nga yàqu na ndax ma ngay wàññi di ko tay ki war a maanaam ki war a ki war a toppe bu toogee tamit julleem nga yàqu na ndax ma ngay ki ki war a ki war a toppe bu toogee julleem nga yàqu na ndax ma ngay wàññi di ko tay ka war a tamit toog war a toppe moom bu jugee toog ma ngay yokk di ko tay yaa ngi war a toog jug toppee te xóor na la ne la ñeent ya mat na juróomeel bi daal moom imaam a ko yokk rek yow nga ne yaa ngi ko cay topp te xóor na la peng kon yaa nga yokk di ko tey kon nag boo yokkee di ko tey sa julli day yàqu kee bu toogee tamit ma ngay wàññi di ko tey julleem day yàqu kon nag ki war a toppe toujours toppee ko war ki warta toppe tumut mun moom warul toppe kon nag saa yu imaam yokkee rakkaxab juróomeel képp ku am sikk sàkka ci juróomeel bi wala nga xóolu ne boo gisee imaam andi ko dafa am bu yàqu ci ñeent yi jugal toppee bul toog boo toogee sa julli gi yàqu na ndax yaa ngi wàññi di ko tey koo xam ne nag moom xool na ko ne ñeenti yëpp valable nañ bu dee julleeg ñaar yi ñaar yëpp valable nañ bu dee julleeg ñett ñett yëpp valable nañ imaam bii bi yokk rek la kooku moom na toog rek te ne ko subhanallah waaye mom tamit bis bu toppee julleeg ba yàqu na ndax ma ngay toppee di ko tey ma ngay yokk di ko tay kon nag lu jar a bàyyi la wa isa sallama bu sëlmalee imaamu imaam qabla kamaali salaati njëkk mat ak julli julli matagul imaam di sëlmal benn rakka wala ñett wala ñe wala maanaam ñett la xam mu ne ma ngay sëlmal sabbaxa na sabbal bi ci ma man xal foo nga nekk ca gannaawam nañ ko wax ne ko subhanallah fa in sadaqahoo bu leen dëggalee kammala na jug mu mottali salaatuhu julli ga ca rakkaxa ba ca des wa wa wa sagada mu sugat ba'da salaam ndax yokku na sëlmal bi te bokkut ci kon moom bu sëlmal nañ ko ne ko subhanallah rek wan ko ne ko benn des rek moom tamit su fekkee nag dañ ko ne subhanallah mu comprendre ne boo gisee gars yi di ma am lu des mu jug rek indi bu paree ñu bokk sujjóot ba'da salaam ndax yokk nañ su fekkee sàbbaal nañ ko comprendre lu mbir yi mën naa laaj ne lan la ñu ne ko benn des bu paree mu jug indi benn ba suñ paree ñu sujjóot ba'da salaam loolu lay wax moo waral foofu wax mënu faa ñàkk bu wax mënta ñàkk moom bëgg nañu wax waaye bu mu passé juróomi baax moo daloon yonantu bi ca julleeg tusubaar ga mbaa tàkkusaan gam julli woon ñaari rakka sëlmal toog loolu yëpp day ni ñëw ne ko dañoo wàññi julleem wala dangaa jamaaj mu ne ko dara amu ci dafa ne ko damay jàngale rek mu ne ko julli gi des na ñaari rakka mu laaj gaay mu ne ko ci loolu wax na dëgg ñu ne ko wax na dëgg yonent bi jug indi ñaari rakka ya desoon ba mu paree mu sujjóot ma salaam wa in shakka bu sikkee nag wax nañ ko subhanallah fii xabar yi ca xibaar ba laaj na maanaam daal lañ ko solo wan ko ne des na ba tax ñu koy sàbbaal imaam dafa caa am sikk bu ca amee sikk sa ala mën naa laaj àddalay ni ñaari way maandu ca gannaawam moo tax dañu bëgg ñu gën a maandu dañuy nekk ci sàppe su njëkk si taxam xam-xam moo tax yonent bi daan wax ne ñama méng borom xam-xam yi ndax su ma mënee jamaj ñi man maa sàbbaal su ma manee tamit lu ñu war a indi ma ku ma su ma amee lu ma gaar ma mën a xëcc kenn mu mën a mottali julli waaye xëccoo sàppi su njëkk te mënoo defar julli kooku du dëgg dana indi gàcce gu rëy ëllëg kon nag na laaj ñaari way maandu yu ko jege ñu xam xam-xam bu leen laajee nag ne waaw dafa des benn rakka wala mat na mën naa matul rek sa mën na koo wax wajaasa daggan na lahumaa ñaar la ñoom ñaar kalaamu wax ne ko imaam des na benn bu mbëri de fi saalika ca loola waaye bu fa nekkee nag benn waaja ñàkk fasaane ko imaam kay su juleek tay gii di tusubaar jii moom kay ba wax ja julli ga yàqu na ndox wax ja moo bëri bugguñu mu paase juróomi baat ci diggante la imaam mu wax ak ña koy tontu yëpp waaye bu xëppate juróomi baat rek julli day yàqu léegi nag waajee moom bu fekkee moom kenn nekk kañ wax moo fa nekk di wax wax ju xëpp moom kenn moom la juleen di yàqu waaye imaam moom su fekkee dafa tënkuwu ci benn baat ba rek kee nekk fa ak ak fasaax dem moom moom julee a yàqu waaye imaam mën naa jug boo xamee xibaar ba mottali li des sa ngese des roy ca moom kële bu pare dem baa mu joxaat julleem nga moo tax mu ne wa inta yàqana bu xóoloo alkamaala mat xamila mën naa jëfandikoo alaa yaqini ci xóoloom sàbbaal nañ ko mu am kóolute ne ah dama foog boo gisee ñi may sàbbaal wala lii lii a tax mu xam ci lu ko wer na andi la ko kóoluteem la des mu andi ko wa taraka mu bàyyi xat léegi ñaari way maandu ya ñu ne faw mu ne ha illa an yakk soro ndare bëri naasu nit ñi xalfoo ca gannaawam su fekkee nag ni ñaa bëri ca gannaawam ba xëpp bu loo ti boppam fa yatruku na baxi yaqiinahoo xóoloom wa yarjaxamu delle illihim jëm ca mbooloo ma laaj leen luñ ko jox mu xam ne lu lay xatte ba buy lu ñuy indi mu dem indi ko su ko defee bu julli ga jeexee mu sujjóot ba'da salaam kon nag atteyaa ngoog nekk loo xam ne nii lu jara baxi xel la su ko defee kon nag atteyaa ngoog moo tax kon wa a sallama bu sëlmalee imaamu imaam qabla kamaali salaati njëkk mat ak julli sabaxana sabal fa in saddaqahu bu ko dëggalee kamala na jug mu matali salaatahu julli ga wa sagada mu sujud ba'da salaam ndax sërmal bi bokkut ci woon wa in shakka bu sikkee fii xabar yi ca ba sa ala na laaj ad lay ni ñaari way maandu luñ ko wax mu jëfandikoo ko wa jaasa dagan na lawu maa ñeel ñoom ñaar kalaa mu wax tontu ko fii zalika ci loolu wa in tayaqana bu xóoloo kamala mat xamila na jëfandikoo xalaa yaqiini ci xóoloo moom ilimaan tamu baxi ñaari way maandu ya moo tax ya ñu ne faw mu ne ah illa an yakthura bari bëri annaasu nit ña xalfahu ca gannaawam bu nit ña bëree ba hëpp nag fal ko na bay bàyyi woo ak hóoloom wa jox mu dellu ilayhim jëm ca nit ñooña luñ ko jox loola mooy xatteem kon nag lax Laxdari mook yàlla dogal naa jeexal nañ ko tey lépp luñ ci yàq yàlla nañu ko yàlla xamal lépp luñ ci xam yàlla nañu yàlla may ñi mën koo jëfandikoo te lépp yàlla na ko nangu ci ni mu toll dañ ko nangu ci ñun ci ñun toll lépp lu ñu ci jàngale wax ko ci te yàlla na yàlla def ko muy nangu ko ca nam toll bu ci ngistal am benn cër bu ci wanewu wala ndéggatal am benn cër te yàlla nag nañu xiir tamit ñi mën a jëfandikoo masala mi yàlla nañu yool tamit yoolab ku jàngale dara ci diineem ji yool ñi nga xam ne ñu ngi ko doon topp di ko déglu ngir ñu defaree seen diina ji su ko defee tamit ñun ñëpp yàlla boole yool ñu la ci ëpp solo mooy yàlla boole jégal ñu suñuy rëcc rëcc yëpp boole tàbbal ñu aljana bila iqaabin wala xisaab jéggal jullit ñi way ñi way feebar yàlla saafara leen way ñàkk yàlla xoomal leen way réer ñi yàlla gindi leen borom aajo yi tamit yàlla faj seeni aajo kenn mënu ko kudul yàlla kon nag Laxdari bi jeex na tey incha allah.